salaamaaleykum samay abonné bu leen di fàtte di abonné wu ci seen bi may ko doole maa ngi ñëw ci international sénégalais muy kan pap Gueye mu nekk ancien jour Marseille mu nekk ndaanan mu nekk jeune joueur moom Pape Gueye wane na boppam ci équipe nationale bu Sénégal mais aussi wanena bopam ci équipe Marseille des fois mu nek partant mais aussi des fois mu nek remplaçant des fois sa du bok ci feuille de match bi mom Pape Gueye mu rejoindre Séville mu dem signer Séville soit soit bu baax la wala soit bi baaxul ngeen def ko ci commentaire mais doomu gaynde du tuuti te doomu gaynde fu mu dem day dem ba mu jeex te dina wone boppam te dina imposer Pape Gueye am na talent te am na technique te milieu terrain bu amul fenn la kon nag bu demee wone boppam def fulla fayda ak jom mun na am place titulaire ci équipe ASC Séville kon nañ ko souhaité Marseille nañ ko souhaité foofu mu nekk bunt bu yaatu ci moom mu dem mu imposer wane boppam ci club AS Séville Séville du équipe mu équipe bu mag la Espagne xam nañ ko kon nañ ko souhaité moom Pape Gueye mu am de jeu bu demee mu imposer ndax am na avenir ci équipe nationale bu Sénégal xale bi ñëw na rejoindre équipe nationale bu Sénégal kon nañ ko ñaanal Sévi jikko lool lool moom lañ leen indiloon tey ci Pape Gueye mu nekk jeune jeu man la Alseyni Alamouta Sport bu leen di fàtte di wu ci seen bi may ko doole seen bi seen seen la gis naa abonné yi gis naa commentaire gis naa ni ngeen di pousser seen bi kontaan naa bu baax sama xol sedd na si